li ci yéene kay li ci yéene kay Abdoulaye Bopp lañ si ànd euh, dal leen ak jàmm Walf Quotidien xëy di ñu xamleeg Benno Bokk Yaakaar ba léegi bennoo guñu tënk guñu seen kaddu ci candidat gañu war a jiital ci élection présidentielle yu 2024 euh, te moo ne de démb jot nañoo pencoo seen biir ca ba waaye waxtaan googe euh, juragul daanaka safara joxewante nañu dig daje fileeg ñetti fan ngir sàkku ci candidat yi yëgloogum ci coalition Benno ñu diisoo ngir mun am benn candidat goo xamante ne moo moo ci turu coalition Benno Bokk Yaakaar yéen a kaabi di l'observateur ne ndaje googe eh, càppale ba tàngoon na jër njiit réew Macky Sall eh, xam le ne am na jafe-jafe eh, munatul tànn ndax candidat yi bari lool fukki candidat ak benn kenn ku nekk bëgg a doon candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar Makhtar si sax dafa mujjee joge ca Salba Mansour Faye moom ma fa juux yëkkate loxoom ne candidat la ci élection présidentielle yi ñu jëm njiit réew Sall àndul ci candidature gorom di Mansour Faye yéen cabinet ci Mame Boye Diaw moom euh, candidat lay doon ci élection présidentielle yu 2024 euh, cabinet may nañ leen app goo xamante ne ñetti fan la goo xamante ne xëy na daañ ci mun a déggoo ngir euh, samp seen mbër ci élection présidentielle yu 2024 les échos génnagul palais ba déggooguñu waa Benno Bokk Yaakaar primaire yañ ca bëggoon amal sax dañ ko mujjee tegaat ci suuf am ñu ci àndul Mansour Faye moom ñoo fa moo fa bett ñëpp xam le ne candidat la ci yooyu la wër goo xamante na ko maanaam nañ ko Moustapha Niass mu ngi ci ay loxoom yéen kaabi di eh, turbine ci xëtam bu njëkk xëy du ñu dégtal njiitu réew mi eh, Macky Sall mi ñu ne ñag na candidat bu coalition eh, Benno Bokk Yaakaar am ñu jàpp ne Boun Abdallah Dionne mun naa doon moom charte gamu signelo yenn ci candidat yi Aly Ngouille Ndiaye moom nekkutoon ca ndaje ma Mame Boye Diao gën di dëggal candidature am ci élection présidentielle ñu jëm l'évidence ne am na beneen candidat gu yëglu di Amadou Mame Diop njiital assemblée nationale dayoom ci wàllu politique moom la yéen yéenekaay bi xëy di waxtaane yéenekaay bi di le mandat xëy waxtaane diil euh, la ñu jota diisoo la ñuy fexe la ñu nas euh, diggante njiitu réew mi Macky Sall Khalifa Sall ak Karim Wade euh, jëm ci itamit la mun a tukkee ca assemblée nationale week-end gi ñu jëm ca la ñuy xam nag ëllëgu Karim Wade ak Khalifa Sall ndax coppite ya ñu ne mun nañ ko indi ci code électoral bi mun a may tey Karim Wade ak Khalifa mun a doon candidat ci élection présidentielle yu 2024 yéenekaay bi di Sud Quotidien waxtaane tolluwaay réew mi Eh, gouvernement bi adduna ci ay poñ yu bari lool te wuute Abdou Karim Fofana mi yor kaddu gi eh, jàpp ne parti Pastef mi fi amatul doon na parti goo xamante ne jur na féewaloo ci askanu Sénégal eh, parti la gu yee fitna gu bëree bëri ci mim réew ay bakkan jot fee rot bokk na ci mbirum woto bis googu de sax jot nañ ci indi ay leeral waaye nag la xew ca Niger foqar ci nguur ga fa am CEDEAO ma fa fas yéene yebal ay takk der Sénégal du ca des ginnaaw dina fa yebal ay takk deram bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ gi ñu bitim réew di maître Aïssata Tall Sall yéenekaay bi di l'info xëy duñu tegtal gouvernement bi wax nañu lu bëree bëri tasum parti bi di Pastef euh, Juan Branco di avocat Ousmane Sonko wax nañ ca Abdou Karim Fofana fàttali na ci taarixu politique u Sénégal euh, Sénégal mu ngi dund ay guddi yu métte métti la ko waral du dara lu dul parti Pastef bu Ousmane Sonko euh, mi ñu ne lu ko dalee atum 1960 ba 2023 li fi faatu ci ay bakkan ci wàllu politique mosu fee am Juan Branco Ousmane Sonko maître Aïssata Sall maître Aïssata Tall Sall jàpp ne jëf la xeebu moom la jëf ndax nangu toon a ci ay BD dafa mujje jaar ci Gambie benoone muy dugg si Sénégal ne dañu jël matuwaay yi ci war jëmale ko ci Juan Branco yéene kaabi di Le Quotidien ne lu jëm ci Pastef mañu tas njiit ma di Ousmane Sonko ma nga bokk na ci su mandat de dépôt goo xamante ne teg nañ ko ci ndoddu Ben Talib Sow di jege ñaale Ousmane Sonko ba ci Toussaint Manga bu Pastef Abass Fall moom mun naa ñàkk poste euh, premier adjoint au maire ci Ndakaaru loole mun naa leer ci àllarba ji ñu jëm yéen kabidi le quotidien moo ñu ko yeggee yéen kabidi yor yor yor gi ne lu jëm ci Pastef les patriotes Ngagne Demba Touré ak Ousmane Diagne ñoom ñaar doon nañu ñu ràññee ko ay kàngam lañu ci Pastef résistance sax lañu woote ci jamono ji ngir jàmmaloog nguur gi fi ne ajuma tey ji ne na ñu jóg ngir euh, libération Ousmane euh, Sonko yéen kabidi critique mu ñu ñuy ca Ndungu Siin yéen ay fan ak ni mu du moyu lekk naan moom Ousmane Sonko euh, soobu ci xiifalu ñaxtu yéen a cabinet a xam ndax newul ne moom jiital Pastef defa bëgg a lem ay fanam maanaam xaru mu ngi ci yéen a cabinet di euh, critique euh, wal Quotidien xëy du ñu jàngatal Ousmane Sonko di fàttali ne moom jiital Pastef bu muy door ci géew politique bi la ko taxoon a bokk na ci jëlee fi système bi fi ne waaye nag système bi fi ne mujjee na ko sànq mujjee na ko yóbbu kaso yéen a cabinet le quotidien eh, jël yoon wutali yoonu yaraax fada da jeey ja ami woon keroog ci talaata gi ñu weesu ab eh, bisu tata ligne 56 ma ñu ne dañ fa jor ab cocktail molotov eh, be mu jur ñaari bakkan yu faatu ak ñaca jota jële gaañu gaañu le peuple quotidien leer na nañ ñaca faatu ci googule accident di Fatoumata Diallo toll ci ñaar fukki at ak benn ak Oumy Diallo di ap xale bu jigéen gu toll ci juróom-ñaari at ñoom ña dekke dëkke ca Medina seen waajur ma nga ca Espagne Espagne ña ca jëlee e, gaañu gaañu itamit lim ga takku na toll na ci juróomi doomi aadama yoo xamante ne jëlee nañu gaañu gaañu ci googu lépp e, musiba mu ngi ci le peuple quotidien yéen a bi di le xëy na ko déggal ne e, ñaari doomi aadama ñoo faatu ci googule jéeya cocktail molotov gañu sànni ci ab bisu tata mi jur fitna ba ñaar ci ay bakkan rocc ñoom ñooñe seen néew ma nga ca morgue bu hôpital dalal jàmm yéen a bi di le soleil descendi ci attentat googe ñu ne am na ca yoonu yaraax ba tax na enquête ba am na lu mu jot a feeñalagum am na ci fukki doomi aadama ak ñaar yoo xamante ne eh, jot nañ leen a tegagum loxo njortu ne seen loxo génnul ci googule jéeya ñu ngi leen tegee loxo ca Yoff diggante Yoff ak Keur Massar Rufisque ak eh, Yëmbal mu ngi ci yenn kabi di Le Soleil yéene kabi di réew mi eh, quotidien xëy duñu dektal Sénégal mi daloo léegi lu ñu duppe ab patrouilleur lance missile ab bâtiment loo xamante jumtukaay la goo xamante ne ñu ngi koy jëfandikoo ci wàllu guerre te itamit muy jaar ci géej gi ba matuwaay yi nga xamante ne nguur gi jël na ko ba am euh, googule euh, xeetu euh, jumtukaay ci jamono ji njiitu réew Macky Sall jot na ko jëmmal lépp na ngir gën a karange kaaraange Sénégal mu ñeel géej gi mu ngi ci yéen kaay bi di réew mi quotidien yéen kaay geneen di stade ne gaynde Njaay mbara wàcce suñu gaynde jigéen yi ci wàllu basket defati nañu jaloore daan nañu démb Mali ma ñu doon jongantel tey ji Sénégal dem na wutali li nga xamante ne mooy final ba diggante mag Nigéria lay doon yéen kaay bi wone nañu euh, mën football mën basket gu mat sëkk goo xamante ne euh, suñu gaynde yi euh, lu bari feeñal nañ ko ci afro basket bi yéen kabiti suñu làmb xëy feeñal ay kaddu Kati Diop coach bu Gris Bordeaux xam leen ne daal duñu ñu jël risque jàkkaarloog Ama Balde combat gi ni mel nañ ko xoolaat yéen kabiti l'observateur xëy xool la juru accident googee nga xamante ne ba léegi rongoñ yi feraguñu ci ñaar fukki bakkan ak ñeent ya rot ca loonu yoonu Louga yàggul yéen a bi gis ne biis googule defa yeboon ba fees dell doon daw ak doole doon daw lu bëree bëri biis ba woto googee amutoon euh, licence bi wër amutoon itamit carte grise goo xamante ne jaar na ci yoon yéen a bi ne accident googee noonee la tëddee ca yoonu Louga gannaaw la tukkee gum ci enquête ba yema fu ñuy jeexalee tënk euh, yéen a kaay incha allah dañ leen ko yaatalal. abonné ci suñu seen ngir jot saa ne ay xibaar yu wér te aju ci réew mi ak ci